parti démocratique sénégalais daal dinañ génne benn communiqué di si yëgle ni fas yéene nañ jàppale coalition Diomaye président ñuy woo seeni militant ngir rek ñu jàppale ko ci yile élection présidentielle ci boobule communiqué ñu mun see jàngat ni kii di njiital parti bi di maître Abdoulaye wàdd li mu jàpp mooy jamono ji Sénégal dafa daal di jaxasoo lool te lenn waralu ko li dul li nga xamante ne ni dund na ko ci at yu ñu weesu. loole nag tax na ba li mu jàpp mooy jamono ji kii di Bassirou jommaay fay la ñuy daal di jàppare ngir rek liñ bëgg ci Sénégal ñu mun ko am muy woo képp kuy militant wu Pastef mu daal di jóg ànd ak ñoom gunge leen ngir rek. ñu mën a soppi lii di Sénégal